salaamaaleykum ami internet Africa 9 TV ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen ñu ngi leen a jox seen wàccuwaay mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa ñu ngi fii ci diwaanu Malika cité Sonatel seet ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Nazir borom xuddaami nekk nit ku yàlla baaxal nekk borom xam-xam waaye nag bala ñuy xusane ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo ñi koy seetaan ci Africa 9 TV Cheikh Nazir ziar na. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi sant yàlla di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di. kañ di bàkk abil abbas cheikh na ahmada tijaani sérif radiallahu anhu di kañ di bàkk cheikh al islam wa barikatil anam moolaana cheikh ibrahima radiallahu anhu waaye di kañ beneen yoon sama sëriñ mi xaadimu salaam hujjatul islam abul aytaam cheikh mouhamadul moustapha ibnu cheikh husayn ibnu seydi aboubacar ibnu ñas al kabir ñu ngi leen di nuyu yéen mbokki internet yi di leen ziyaara di leen ndokkeel di nuyu site bii nga xamante ni mooy Africa 9 TV Euh, di sëñ loo mi nga xamante ni moo ñuy interrogé pour ñuy wax ak jaami yàlla yi si lii nga xamante ni moom la ñuy liggéey te am si ndigal lu wér muy faj yaa ngi dégg soxlaay jaamu yàlla yi wasalaamaaleykum wa mu ngi noonu mbokk yi kii mooy Cheikh Nazir borom xuddaa bi nekk nit ku yàlla baaxal waaye laata loolu dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy actualité bi ndax ku ne xam ne ne Cheikh Nazir am na wax bu mu fi waxoon dëkk bi riir ñu bëggoon a duggaat ci duggaat ci loolu ba tey bi ñuy dugg ci wàllum faj Cheikh Nazir ñu gisoon jamono yee passé neewoon nga kii doon président 2024 xam nga ko waaye Sonko moom alaa kulli àll du faju mbir mi may laaj ba gis nga ci changement ci diggante wala ba tey mi ngi taxaw fam taxaw euh, soo gisee sànq bi ma nuyoo jaar fi ma jaar man damaa nekk koo xamante ni li ma doon du ma ko nëbbu te du ma tricher ma bokk dama koy wax ñëpp xam ne fii laa bokk dañuy faral di olof dafay faral di am lu muy caax na lëg bu lekkee olom na ko gërëmee cooy nit ki li la xamal ak li la feeñal ak li la def li nga doon fooy mën di wax war ngaay askanoo foofu wax ne fii nga bokk man du ma du ma koy nëbbatu du ma koy làqatu ki ma defar fu ma toog dinaa ko nuyu dinaa ko joxoñ ñun ay taalibe ba Ñas lañ nëbbatuñ ci li ñuy def lii ñuy def nii nag di ko wax di ci liggéey di ci dimbalanteeg jaamu yàlla loolu amu ci nëbbu amu ci làqu waxoon naa fi génnoon naa fi wax ne na Ousmane Sonko ndaw la loo loo xamante ni day wut réew mi te am na ci droit ndaw la lu jàmbaar ndaw la lu am fitt ndaw la lu bëgg lu baax mi ngi koy wut nag te wut na ko fi ko war a wutee moo waxoon ne Ousmane Sonko na wut réew mi ci dal ak teey su yàlla su ko yàlla dimbalee mën na say jot si jàmm di wax ne président makk mii nekk fi coow li bari na lool nit ñi di wax premier euh, troisième mandat troisième mandat ba léegi yàbbiwul si gémmiñam ne man damay def troisième mandat lu tax nit ñi mënuñoo xaar ba élection yi jot ñu xool ba xam waa ji dafay appliquer troisième mandat boobu ñuy xalaat si nu xel da koy def wala du koy def bu ko defulee ñu xam ne defu bu ko defee ñu nit ñi taxaw jàkkaarloo moo wax amul taar réew mi amul yee fitna réew mi képp ku ko bëgg a jot na ko jaar si dal ak teey te sénégalais yi nag dofuñu de képp ku ñuy jox réew mi dañ koy xam ko am jàmm te am dal di ko laaj ci dal nañ la ko jox neneen noo ko laajee te woo ko ci dal waxuma la doo ko jot waaye du gaaw de ma waxoon ne Ousmane Sonko 2024 bii di ñëw man yàlla wan na ma te dimbali na ma wan na ma ne Ousmane Sonko di toog si réew mi waxuma na nag du doon président waaye 2024 gii laa waxoon ne moom du fi toog te ba léegi maa ngi dëggalaat sama wax jooju la ma gisoon ba tey loolu laa gis ba tey loolu laa loolu laa loolu laa jàpp man te loolu laa dëggal beneen bi président Macky mii lu ne ñu ngi ko koy wax naka muñ moom ak ñi mu àndal. àddina noonu la képp ku jiite dinañ la wax baatu ginnaaw dinañ la wax lu ne waaye maa ngi gën ci alquran bi président yi fi mas a jaar yëpp ku mel ni président ci liggéey li mu samp ak li mu doxal ak li mu taxawal. lu mel ni autoroute Ila Touba lu mel ni DER yaa ngi dégg lu mel ni TER bi lu mel ni euh, dégg nga hôpital yu mag yi mu taxawal lu toll noonu amul benn président bu ko mës a taxawal waaye lu nekk nag ñu ngi ko koy wax na ko muñ te xam ne njiit noonu la dëgg la Cheikh Nazim mu ngi noonu kon mooy li nga xamante waxoon na ko te gën na koo dëggalaat waaye ba tey dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy mbir mi moom mooy liggéey bi moom mooy li nga xamante ni Sénégal yëpp xamee nañ la ci may la ci ak baatin suñu borom may xam-xam bu muy wàllum seet bi Cheikh Nazim bala ñuy xuusi na ci waxtaan sa digganteeg seet bi tey Cheikh Nazim lay seetee koo xamante ne mi ngi bitim réew wala koo xamante ne mi ngi Sénégal wala koo xamante ne sax mi ngi Sénégal te jotam may ko mu agsi ci ci kër gi nooy seet noo koy seetal waaw seet moom nekkal ba États-Unis nekkal ba Angleterre ndax ñu ngi jëflanteek ay nit yoo xam ne ñu ngi ba bitim réew lu ëpp sax si ñoom la ñuy liggéeyee ndoolal fi nga nekk ngay nekk ñu xoolal la jox la li nga xamante moom lañ la jox àddina bi fi nekk ne frontière yëpp dajjeeku na foo mën a nekk mën nañoo jëflante mën nañ la xoolal xool bi ñuy xool na dañoo xool si ramlu di xool si kurus di xool si ndox yaa ngi dégg di istixaara yii dañ koy xool te xool bi nga xamante ni moom la ñuy gën a utiliser di ko jëfandikoo jamono jii mooy ramlu te luñ la ci wax xar-xarab doj la du koluwaat mukk luñ la si wax dëgg la seet nag duñ ne réew mi ñoo ko fi dàq waaye xam nañ ne ñi ko fi dàq ci lañ bokk réew mi damay faral di wax ne man du ma ne maa fi mën waaye ñi fi mën xam naa leen kon ñun lii ñuy def nii dañ ci am ndigal lu wér dañuy dañuy faj lii ñuy wax émorite intière ballonnement yaa ngi dégg ak wàllum ngóor a wàllum ngóor a gaaw a daanoog yaa ngi dégg ak ku bëgg lu yor lu ndaw bëgg a mu muy mbirum awra yooyu yëpp maa ngi dégg ni ñi naan ñii naan am na ñii naan amut waaye ku ñam di nga xam ndax am na wala amut la mu saf nag kooku macc ko xam waaw mu ngi noonu mu ngi noonu kooku mooy Cheikh Nazir comme ni mu leen ko waxee wàllum seet moom fépp foo mën a nekk ci àddina bi soo ko wooyee mu defal la seet goo xamante ne du dañ fatuwaat kàlla macha allah mu ngi moon waxaat na ko ba tey ci wàllu ngóor bi dafa dama bëgg ñu taxaw fi tey góor gi nga xamante ne tey day gaaw a yëg boppam mënul yàgg ci soxnaam wala góor gi nga xamante ne tey awraam dafa ndaw bu ñëwee yokkal bi weer lay doon wala at lay doon wala lu déedéet yokkal bi moom gën kaa bëri 21 jours nga sentir yow li la doy 21 jours ñaar fukki fan ak benn nga sentir yow li la doy yaay xool ndax da ngay continuer wala dangay ngay arrêté yokkal bi moom li gën a bari mooy ñaar fukki fan ak benn waaw wàllum kii bi nag gaaw daanu beeg yooyu liñ ci yor moom dañ la koy jox wax la noo koy doxalee nga nuggal rek ndox mi am yoo ko boole ñu wax la ñu ngi koy booleeg meew meeg yooyu yaa ngi koy booleeg yaa ngi dégg boo ko naanee si kàttun yàlla boo doon def 10 minutes di nga def lu ko waaw di nga def 15 minutes wala lu ko te wàllu ngóor nag maa ngi dégg nit ñi di si wax lu ne sëy une heure de moom amut sëy une heure de amut mala yi sax ñu la ëpp kàttan dàq sëy boo demee sëy une amut kon nit ñi yàlla borom xel yi lay waxat nit ñi nañuy nañuy nañuy dégluwaat yenn kàddu yi te nit ñi dofuñ waaw boo leen waxee lu tegu xam nañ ko boo waxul lu tegu xam nañ ko waaw waaye daal lii daal moom yàlla dimbale nañu si te may nañ si muy wàllum ngóoru mi yaa ngi dégg ak wàllum yokk mi yàlla yàlla dimbale na seen ñu ngi ci lijjanti di ñu ngi ñu ngi jàppalante jaamu yàlla yi nga xam ñu ngi nekk ba bitim réew te ñu toog la ñuy toog jox leen suñu produit ñu laal ko wax nañu ne mbir mi baax na kon alhamdulilah macha allah mu ngi noonu alhamdulilah macha allah ngay yëngu ci ulcère ak ballonnement ku ne xam ne ni feebar yooyu day dal ñëpp surtout jigéen ñi tey ñi nga xamante ni ulcère da leen wala ballonnement da leen sonal tey bi si ñaata weer la waa INSER kum sonal wala ballonnement dafa am ñett ñett kii yoo xam ne ñett traitement yoo xamante ni da nga koy jël ñetti yoon ñetti yooyu nag balaa moo jeex ci weer rek lay tool waaw ñetti yoon nga koy jël ñetti yoon yooyu suñ la ko joxee nga utiliser ko ni ñu la ko waxee ni ñu la ko waxee nga defee ko noonu ci kàttanu yàlla di nga tàggoo moom amul luy ñëwaat faj mu dañ carrément laa wax man waaw carrément macha mu ngi noonu képp koo xamante ni ulcère sonal na la wala kon gaawal gaa nga ñëw sees nga xamante moom mooy cheikh bi nekk fii ci diwaanu Malika cité Sonatel boo ñëwee ba ci arrêt 75 bi rek boo woote ci numéro yooyu ñuy affiché ci écran bi di ngeen ko gis waaye Cheikh Nazir ba tey ñu desandi ci li nga xamante moom mooy waxtaan bi tey gis nañ ndaw ñi bëgg nañoo tukki am nañ problème mu këyit ñii dañuy dem demander ak fu nekk si àddina bi nit ñi dañ may woo di ma wax na ma mbirum kayit ñu nekk États-Unis Angleterre yaa ngi dégg Espagne France ba Belgique dañ ma fay oo waaye du ma jëflanteeg mbindeef mukk man jëflanteeg yow li ma la wax nga teg ko sama loxo ñu jëflante li ñu war a tëju ñu tëju ko li ñu war a def ñu def ko li la war a yónnee ñu yónnee la ko nga def ko te amoo kayit du am mukk loolu moom yàlla dimbali ñu si may nañu si xusoo si yóbbu rëy boo xamante képp kuñ si jëflanteel li ñu waxante yow nga teg ko suñu loxo du yàgg te di nga jot sa kayit waaw loolu moom si kaamuti wàllu nopp wàllu nopp jigéen ñi nga xamante ni bëgg nañoo nopp seen jëkkër wala jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi ñu bëgg nañoo sëy te mënuñoo sëy tey nopp noonu nan nga ciy yëngu. waa loolu loolu si suba ba léegi boo xoolee si loolu laay liggéey mbirum nopp jigéen ñi sonn nañ lool si seen sëy góor ñi tamit sonn nañ waaye jigéen ñi ñoo ëpp liñ lay ñëwal ndax jigéen ñu bëgg sëy lañ ñu baax lañ ñi lay woo ci jigéen journée bi naan la sama diggante jëkkër laa bëgg ñu nekk benn kenn xamu nu toll te loolu nit ku baax ku bëgg sëy rek koy def wàllum doom dong moom amul mbindeef mu ma koy defal ma jox la sama garab na la defee ko nii defee ko nii am loo xam ne man maa koy téye sam bopp defal ko sam bopp te yow doo ci gis résultat mukk ci àddina bu fekkoon na yaag sa jëkkër da ngeen daan xuloo xuloo bi day dakk bu fekkoon ne daan la la jox téye loxoom dina la jox bu doon kër gi xuloo daan na fa am jàmmay xew non moom yàlla dimbale nañ ci mën nañoo toog fii ñu toog defaloo ko à distance mën nañ la defal à distance ba pare jox la ay mbir na la defaloo ko defee nii ak nii ak nii ndax doomu aadama tey loo leen mën di defal te tegoo dara seen lox seen yaqin dafay des moo tax man fii ma toog nii rek mën naa laa defal noob te doo ñëw doo du ma la yónnee waaye dama lay defal ba pare am lu ma teg sa loxo na defee ko nii ak nii ak nii loolu mooy daal seen xel ñoom non moom yàlla dimbale nañ ci cheikh bi bu ñu jógee ci wàllu nopp tey gis nañ ni ñu bari rab moo leen teree sëy mm-hmm. tey ndaw ñi amatuñ jëkkër ndax rab tey ndaw ñi ñu ngi am ay problème ndax rab tey ci ki nga xamante ne rab sonal na ko bu ñëwee ci yow nan nan nga koy sax waaw mbirum rab moom ñun dañ ciy liggéey te tay tay tay jii rek ay 10 heures 11 heures am na nit ku fi ñëw koo xamante ni loolu ko fi dafa jugee ko ci sëyam tàggook jëkkëram toog na ñetti semaine yoo xamante ni lekk dugg ci gémmañu ñetti semaine loolu bu ñu ko waxee ni du gëm te ndaw si foo fekk da nga naan kii moom da jeexalu dara lépp a mbaax na fekk na ni mel noonu rawxaan yi dugg rab yi dugg nañ ko ba nga xamante ni dañ koo walawal ba biir boo gisee danga naan dafa ëmb te ëmbut waaye li ñuy bind jox la ko buñ la koy jox jox la la la ànd ak ñu jox la nga ëw ko takk ko ci kàttanu yàlla ak la ngay sangoo rab bi dina tàggu yow tey tey tey tey ay 10 heures 11 heures la ma ñëwal te ba léegi nii may waxee yow nii lekk dugg ci gémmiñ waaye bi ma ko joxee li ma koy joxe fi mu nekk nii may waxee yow nii naan rek la daan te fi nekk nii ñu mos lekk waaw mbirum rawaxaan moom dañ ciy am ndigal te dañ ciy faj. waaw mu ngi noonu kenn képp koo xamante ne daal rab sonal na la wala képp koo xamante ne daal toog nga sentir ne kat lii di ñëw ci yow bokk ci yow ñëwal sees nga xamante ne moom mooy Cheikh Nazir nee naa leen nekk fii ci diwaanu Malika cité Sonatel boo ñëwee ci arrêt 75 bi boo wootee rek xale daañu la jël si wala ñu daal lay tegtal ba nga dugg ci biir kër waaye Cheikh bi ba tey dañuy desante ci wàllu li nga xamante ne moom mooy faj xam ne ni jamono ji nii ah, am yombul ku ne xam ne jamono ji xale ñu ngi ut waaye mënuñoo am wàllu bayre bayre njaay bayre place wala bayre góor wala bayre jigéen dégg naa nag amoo ci morom waaw muy mbirum bayre muy mbirum noob muy mbir mu mënti doon bala ma kaay defal nit ki dinaa xool yow sa mbir ba pare parce que nit ki mënoo di ko defal mbir te xoolaloo ko bu boobaa def-def bi nga koy defal dangay ngay làmbatu rek man lu laa gëm bu fekkee ne da am place walla nga nekk si barab boo xamante ni da ngeen koy xëccoo am nañ ci secret boo xam ne buñ la ko joxee yow place bi nga ne boo ko si gasee suul wala nga def ko fi ngay liggéey bu dee bureau nga yor nga tëj ko si turaal boo xam ne kenn du ko gis fekk mi ngi fay nekk directeur bi sax mun la faa jële yow yaay bëgg a génne rek toxalu dem feneen waaye kenn mun la faa jëlee suñ la xoolelee ba noppi nag mbirum bay rek suñ la ko joxee client yi moom bu fekkee ne looy jaay la wala loo xamante ni yow da ngaa nekk si benn mbir nit ñi bëgg nit ñi di la ñëwal nit ñi dinañ jigee ko côté bu nekk di la ñëwal yow loolu boobaa daf lay jaaxal bayra moom macha allah képp koo xamante ni dafay yëngatu ci mbirum njaay ak jënd ak place boo xamante ni mbirum mbooloo la war nga ko am waaye nag bayre nag bala ko nit di am dafa war a am kaaraange ba noppi nit ki boo amee bayre te amoo kaaraange amul njëriñ waaw amul njëriñ kaaraange mooy lépp waxoon naa ko nee naa ne nit ki bu amul kaaraange mënut toog si barab jaamu yàlla nit ki bu amul kaaraange mënut tukki nit bo bu amul kaaraange mënut a dem fenn kaaraange mooy lépp nit ki. beneen bi ma ciy dolli nag di di waxoon ko mooy mbirum Ousmane Sonko mii waxoon ko dëggal naa ko te la ma waxoon du ma ci dañ ba léegi loolu laa gisaat mbirum président Macky Sall mii nit ñaa ngi koy wax lu ne di ko yekk lu ne may wax ne nit ñi nañ fonkaat kilifa yi muy kilifa diine muy kilifa aada nañ fonk sin xalifa yi nañ fonk sin kilifa diine yi ñoom lañ am fi nekk nii réseaux sociaux yi yàqu na nit ñaa ngi toll fu nekk ci bitim réew ak biir réew mi di leen saaga te loolu xamuñ ko woon baaxoowuñ ko ñun réew mi jàmm lañ xam ak fonk kilifa nit ñi nag nañ nañ nañu ommatuwaat te tegu si yoon wi bàyyi di saaga xalifa général yi bàyyi di saaga suñ sëriñ si bàyyi di saaga président bàyyi di saaga suñ kilifa aada yi amul njëriñ daf ñuy delloo ginnaaw waaye du ñu jëmale kanam may wax na nag réew mii képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci politique di yëngatu ci politique na na teg mbir mi si yoon te bu indi violence bu mu indi fitna élection yi bu jotee waaxu leen dem sànni carte ki ngeen xalaat ne moom moom mooy gañ réew mi nag ku nekk ngi wax naa nanga ma nanga waaye réew mi man ki koy gañe man xam naa ko man ñu ko jox ñu ko en exclusivité ci Africa 9 TV nga wax ñu kan moo a doon président Sénégal 2024 incha allah réew mi moom ki koy man xam naa ko te dama koy wax waaw nit ñi nag dañuy faral di wax ne boo waxee mbir ñu ne xay bu yàllaa koo xam su fekkoon ne xay bu yàlla rek moo xam xay bu nopp kon kenn du wax ci xaybu yàlla mi xam xaybu moo xamal nit ñi xaybu ki xam mbóot moo ñu mbóotal mbóota fi xayboo ngi fi am na si yenn mbir yoo xam ne boo koy wax dañ naan wér mbóot wér amut kenn mënut a wér mbóot fii xanaa ki fi nekk ay weer mbóot wér mbóot ki fi nekk moo koy weer waaye ku fi nekku doo wér mbóot ñun li ñuy wax dañuy wax loo ñuy wax wéeruñu benn mboot li fi nekk rek ka fi nekk te kenn xam na ne ñëpp d'accord nañ yàlla rek fi ne kon kan moo fi nekk ba naan yow yaa ngi wér mbóot may wax na 2024 bii nii di ñëw kii doon président xam naa ko te dinaa ko wax dinaa ko wax su ma ko waxee nag lépp loo xamante ni nit ñi wax nañ ma ko ci wàllum saaga wàllum xase lu nekk man angu naa ko waaye Amadou Ba la ñu yàlla wan ñun Amadou yàlla wan na mooy doon président képp koo xamante ni ñun déggal nañu ñun dinañ ko wax nañuy wotelal Amadou Ba Amadou Ba ñun lañ gis ne mooy doon président moo génn ñun loolu lañ gis. ok mbokk yi mu ngi noonu actualité ah, ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Nazir nee na président de la République 2024 Amadou Ba lay doon bokk ci gouvernement Macky Sall kon nag gars yéen a ko déggandu ko bi nee na Amadou Ba mooy nekk président 2024 incha allah waaye Cheikh bi ba tey dañuy des si ñi nga xamante mooy wàllu ndomba ndax gis nañu yaa ngi ciy liggéey ay ndombo yu am solo ndaw ñi tukki wala ndaw ñi nekk ci biir réew mi bëgg kaaraange ndaw ñi nga xamante ni bëgg nañ muslaay cheikh bi sa diggante ak ndombo yi nga xam ko jox jaamu yàlla waaw bala maa wax si ndomb yi ma wax mbirum euh, mbirum doom jigéen ñu bari damay dégg ñuy tawat seen seen jàmbat waaye man ñi may ñëwal ñëpp te taxawoon walla ñi may ñëwal ñëpp sëy lu yàgg amuñu doom bañ jëflante am nañ doom sekkere bi ma koy liggéey si këtu ngunu këru nguru ngunu si laa koy liggéey def ko si tur yàlla woowu tur woowu ñuy wax wa waalidinu maa wala da tur la ci alquran la ne wa waalidinu maa wala secret boobu lañ koy liggéey te ku nekk xam na ne ngunu day jël sax dem sa koññee ba nële saxu dee laa la wax de soppali ko ngunu ngunu moom moom mooy indi ngunu moom ngunu moom mooy soppali ngunu def ko ngunu sax lay jël lu dee ñëw dugal ko foofu soppali ko def ko nguru képp kuñ ko jox di nga am doom boo toog bu soobee yàlla yonent bi boo deful nànk si nef ngay dëkk waaw di nga am doom si nu mu gën mbirum ndomb yi nag mbirum kaaraange yi ñi ngi si am ndomb goo xamante ne képp kuñ ko jox nga takk ko doo dellu ginnaaw muk ca kanam rek nga jëm te di nga raw say maas te say noonu duñu mën si yow dara kaaraange la fukki mbakkan la ak ñaar duus gaaw la kuñ ko jox yéegala moom avion yéegala moom bateau yéegala moom oto lu ne dara munu si yow dara ndomb kaaraange gu wér la gu wér kak waaw képp kuy ko jox mucc nga. Cheikh bi bala ñuy jeexal xam naa ci làmb Balla Gaye Boy Niang bi dañuy tëjee waaye sa digganteeg dugg xalwa ndax des fois day am kilifa yoo xam ne dañuy bëgg ku leen duggal xalwa wala des fois day am kilifa yoo xam ne dañoo bëgg seeni mbir nga ñëw jëlal la jël sa temps ñëw liggéeyal leen liggéey bu mucc ayib ci wàllu xalwa sa digganteeg xalwa lan lan lan. gis nga ñun. li tax ma téye kurus gii mooy ñun alxuraan la ñu am ak kurus man bari na lu may liggéey man du ma jox nit dara tëju rek suñu waxtaanee ba déggoo su ma tëjoo soxla bi lu mu mën a do lu mën a doo nag laa wax su ma tëjoo su ma génnee rek yàlla saafara ko alxuraan la ñu am ak suñ kurus yii dog yu wér lañ si yor te am ci ndigal làmbatuwuñ te duñ waxantu may wax ne lii ñu ne nii ñun ndono la su ñun balañ see am ndigal kon ñun lépp lu ñuy def xam nañ ko te lu wér la kon maa ngi waxaat ne sëriñ si nga xam ne dañoo nekk ci internet bi ñenn ñi di tëkku seeni morom yi ñenn ñi saaga nit ñi nañ ba yooyu jëmaliwul kenn kanam nañ def seen liggéey correctement te bañ a dugg ci yenn yi amul benn njëriñ benn njëriñ amu ko waaw mbirum euh, kii boo nga mbirum xalwa dañuy dugg xalwa ñetti fan dañuy dugg xalwa juróom-ñaari fan ça dépend ci soxla bi ñu wax ak lan la ñuy d'accord ak yow pour nga jox ñu loolu ñu mën lay dugal ndax dugg xalwa dafa doy waar goo xamante ni boo koy def soxlaay nit ñëpp ñu lay ñëwal da nga koy arrêté kon kooku boo koy dugg war nañ laa jox lu ko jar waaye duñ ci duggal nit mukk mu génn te soxla bu fajut loolu moom si ka amul si. mu ngi noonu waaye Cheikh bi balaa ñuy tëj Balla Gaye booy Niang nekk dimanche tey ji 29 décembre 2022 kon diggante Balla Gaye ak Boy Niang ñii ne Balla day daan ñii ne Boy Niang day daan ma ne man yow. Balla Gaye Boy. waaw Balla Gaye Boy Niang am na ñu bëri naan Balla Gaye Boy Niang bu si kenn wax bu si kenn nangam man de lu ma yàlla wan ma yërndu ko mu wér te dara nekku ca wax ay waaye ñun lu ñu yàlla wan ci diggante Boy Niang ak Balla Gaye man am naa ko ma faral si ñoom ñaar waaye kii daan la yàlla woon suñ ma si laajee ne tama xam si dara dama koy wax Balla Gaye liñ gis na mooy daan booy ñaar jël bu rëy sax loolu lañ gis waaw yàlla nag lu ko neex nag lay def waaye lim ñu wan teñ gëm ko te gëm ne lum ñu wan ñun dinañu ko dinañu ko dëggalal wan ñu ko ci anam bu leer dëggalal ñu ko ñun booy euh, Balla Gaye lañ gis na mooy daan ngi noonu kon dégg ngeen lu wax tey mooy la 29 décembre 2022 Balla Gaye day daan Boy ñaa jël bu rëy waaye Cheikh bi tàggatoo bi lan lay doon ak looy tëj. tàggatoo bi de la ma commencé woon rek laay wax ndax ñun amuñ ku dul lislaam amuñu lu dul tarixa amuñu lu dul faydu bii nit ñi nag la nga nekk da ca doxal da ca am lu ne yoon la boo toogee sant ko gërëm ko muy Cheikh bi ñun de nu ñu mel moo ñu ko mel lu ñu am moo ñu ko am loo suñu yëngatu yeeg suñu dal yëpp bàyyi la ñu nëbbatuñ de buñ la tëll rek nga xam ku ñu doon du ñu masqué wu te du ñu génn di di di wax keneen di bàyyi bàyyi bàyyi rek la ñuy wax ñun maa ngi sant nag mbokk internet yi nga xamante ni jamono bu ne ñu ngi jëflante ak ñoom te li ñuy jëflante ñoom yàlla ñu si dimbale di ñu suturaal ñu siy gis taw tawféex loolu ñu ngi leen siy sant bu baax di sant site bii na nga xamante ni mooy Africa 9 bii nga xamante ni. maa ngi wax ne site la bu am solo muy sëñ Lo mii nga xamante ni moo may interrogé may wax jaamu yàlla yëpp di dégg ñu ngi leen di seen site bi bokk si site yi gën a kawe bi jaay rasulullah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bi jaay Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu wasalaamaaleykum wa rahmatullah